mooy coow la woon ca Saly waa ji waxoon ne dafa jënd terrain ba pare dem ñu ne ko terrain bi am na borom mhm. ci biir waxam sax mu ngi doon expliquer ne ki ñu wax ne borom terrain bi la ba ñuy lijjanti dafa génnee ay fetal mhm. kooku nag mhm. nekkul ci réew mi waaye am na ki yor dossier bi ñëw na indi ay leeral ci yëf yëg ni mu demee nee na terrain bi benn waay moo ko moomoon su ma jumul sax ak tubaab la am ku mu ko jaay devant notaire kooku mu ko jaay moo ko jaayaat terrain bi moom hmm. te bi mu ko koy jaay dem nañu vérifier ci mairie ba hmm. ba mu leer hmm. bi ñu commencé di liggéey bés mu jaar fa gis ne am na keneen kuy yëkkati leneen ci terrain ba commencé fa def ay fondement ak ay birig ak yu ni mel mu dem descos kalaame ko waa descos bi ñu ñëwee xool moom waa ji xam ne amul autorisation de construire xool ki fa nekk moy waji tuddu tudd Matar mhm. momit amul autorisation pour construire DESCOS ne leen mhm. arrêté leen lépp da ngay nemuti keuy d'abord mom mhm. waji indi leeral yi am na yeneen sax yu mu ci teg da koy déglu déglu moom si njalbeen bi wax ji jibee daf ni du xolo du xex dafa dem ba DESCOS woowaa DESCOS informer len ñooñu ñew fa de vérification gis ni effectivement terrain bi am na keneen ci ñëw di ci def du borom moo ko bi si commandant wu de bi demande leen toute activité jëmale ko terrain yi bàyyi ba mbir mi leer euh, si moom la a pour mën droit wu tabax ko autorisation de construire biñu xamalé loolu Mamadou Lamine Diop comme jotone de vente li nga euh, continuer procédure bi dem mairie bu Sali. régler fa papier yam régler fa dem urbanisme dem impôt dem cadastre jaar ñu jox ko papier parce que xamnañ ni terrain ndax bu jaarul woon si yoon kayit yooyu yëpp du ko am ginnaaw bi mu jaaralee léppam nag si yoon waa jooju ñuy wax Matar Gueye ba des ko ne bu fa kenn dem moom moo jaar ci suuf jël ay maçon yóbbu leen fa ñoo ngi def ay construction pour wane ni moom def na fa dara te fekk na booba la fa gët a nekk lépp Mamadou Lamine Diop moo ko moom pour wane ni mom dugal na fa xaalisam wala def na fa dara taxna na mu jaar ci souf après arrêt d'escos bi di fa def ay construction c'est juste rek pour préciser que ni Mamadou Lamine Diop du nit ku ku violent euh, responsabilité bi mu yor moko may ngànnaay yi mu yor mu yore ko xeyna so soo sa ngànnaay mu nek sa biiri bagage ngay euh wax ak nit beutam daal dal ca mu profité ci loolu danga maa doon defaree arme Mamadou Lamine ku ko xam-xam ni du nit ku violent du nit ku bari histoire du nit talul sax loolu foo ko fekk mi ngi ci liggéeyam mi ngi ci njabootam te personnel am mën nañoo seede lu mel noonu kii nag di Matar Gueye ah, ñi ko xam nee nañ c'est un coutumier des faits li muy wax noonu yëpp waxu boppam la te tey ba coow li amee Mamadou Lamine li mu def mooy jël lépp jébbal ko yoon dem tribunal porté plainte xamal leen ni man kat samay terrain dama ko jënd fa ma ko war a jënde ki ma ko jaay bi mu koy jënd ci notaire la la jóge jënd terrain ñu jaay ko ko mu jóge si notaire jaay ma terrain ba may def samay formalité parewuma kii ñëw dal sama kaw ni moom moom terrain bi ma continuer def sama procédure ba sama papier yëpp daanaka yëpp génn looloo tax ma jël kayit yi fi ma jaar yëpp ci processus bi ma won leen ko pour que ngeen am de preuves à l'appui comme quoi que ni Mamadou Lamine Diop mooy borom kër gi Mamadou Lamine Diop moom moom terrain bi ak dara Matar Gueye Matar Gueye mu nekk euh, lii muy wax di ko jëmale si nit ñi ci moom moom moomu la nekk kenn foqat ci wër alalam Mamadou lamin jaar na fi mu war a jaar wax na ak ñi mu war a waxal def na ak li mu war a def ba tribunal convoqué woon nañu Matar moo moomu di wax on ko de tribunal ça fait même pas un mois il y a moins de trois semaines bi tribunal ak léegi kon dossier bi mi entre les mains de la justice ki koy tax di comme daf ni yoon la am yoon la gëm na nangu li li atte ñun de xeexuñu ci yoon yoon may lu ñu yoon xañ ñu xam itam yoon moo ñu ko xañ waaye euh, dinañ teg suñu lépp ci yoon. mi ngi noonu kon leeral yooyu lañ doon andi ci bomb bi nga doon wax Sali. mais nag Ndiaye. Uh-huh. dama ko dégg mu wax benn wax ci biir wax yi. Uh-huh. mu ne dafa dem mairie ñu ne ko terrain bi amul benn problème. Uh-huh. bi ma demee Sali. boo xoolee njaay boo gisee image yi nii. yii. gis nga ni bi doon bi li c'était en 97. Hmm. gis nga fondation bi ni gis nga terrain bee nekk gis nga fondation bi aussi c'était en 97. Hmm. parce que buñ ñu la ko joxe dañ ci def pen. Hmm. def na fa pen def na fa def na fa fondation. ba par yone ay këyit yo xamanteni préfet moko ko hmm maintenant lutax waxu salib am am am solo. moy premier cas du fi ñewoon daam bobu non bi mu demee même service bobu terrain bañ ko won dañ ko amul problème. mu dem bëgg fay ñu retourné ko terrain ben gendarme moko mom loolu beneen kaa la. wa beneen kaa la te ci même sali bi la. Hmm. léegi nag xam nga problème bi. mooy ñi la war a leeral duñ la leeral. parce que ñun man mii woo naa le maire hmm. parce que il était courant ndax am na ci projet boo xam ne demoon na. Hmm. bi ma ko woowee expliqué ko cas bi yëpp daf ne ma maa lay rappel dans cinq xamante ni moom lañ ciy accusé naan moom mooy nekk en connivence ak gars yi. mu nekk service domanial aussi muy ñu koy xayaa. woo ko téléphone aussi mënuma comme affaire mi ngi ci yoon nañ bàyyi ba yoon léegi nag ñoom ñii nag muy ki ñu wax mooy borom terrain bi ak paa bi di Maxtaar Gueye mhm. ba ñu demee Descos ca commandant Ndiaye mhm. lam leen wax ñoom ñëpp dégg nañ ko parce que am na ci kayit yoo xamante ne bu mu génnee moom daf ne moom euh, Mamadou Lamine mi mhm. ne jabaram moom moomoon terrain bi loolu lañ di ko wax ba ñëwee ba ci biir ñu ne benn tubaab moo ko jaay waaw te ñoom ñëpp nag koo ci wax ana ki la ko jaay soit dañaan la dee na wul noom tubaab bi jaay ko tubaab bi dafa am kum ko jaay kooku moo ko jaay mom la da mais daf du njëkkoon wax ne jabaram moo ko moom ah. comprendre nga waaw donc c'est problème bii nii njaay il faut que gars def ci soit liggéey bu am solo wala yoon tamit jug dem service domanial bu sali xool affaire yi parce que bari na fa de waaw léegi ñun wa euh, fii la ñu mën yam wa waaw ndax kayit yi ñu yor terrain ba ngi sali carrefour extension wa juñ naan Pape Abdou Guèye hmm. moo ko jaay waa juñ naan Amadou Lamine Diop hmm. Hmm? Hmm. loolu daal lañ ci mën a am mais nañ bàyyi yoon lijjanti ko kon li ci des fu ñu jëm feneen. Ndiaye. Hmm. comme tey la vendredi. reportage vendredi wala conférence vendredi. kii. dafa nekk xale bu ndaw. góor loola jigéen première partie deuxième partie troisième partie du ma ci commenté benn. góor loola jigéen jigéen la. ok bi mu nekkee xale. nekk Dakar di liggéey papaam génn àdduna. quelque temps après benn xaritu papaam woolu ko ne ko sa papa daa waxoon pour mu jël la comme soxna. mënu ko sa morom papa nga kon mënu ma sey yow te sama papa musuma wax hmm gis nga waji neeg bi mu tok diko wax loolu mënu ko gis nga neeg bi fi ngay sey ci te fi mooy doon sa neeg xale bi bañ 4 ans xëy rek nangu dem sëyal ko waaw ah, te neeg bu mu ko 4 ans avant mo nekk neegam fa la wàcc est-ce que ci takk bi la ñew après ñu ñew njaay ci lam fa dund ci bir sey ba hmm nef gi ah dafa nef <laughs> nef bu gaaw Ah, xanaa mu newul ne waa ji morom papaam la woon. ah ah tamit ah Ndiaye tamit nag après. Ah, hmm. dañuy dégg première partie ba pare doog ñëw ci nef gi ñëw ci tas gi ak ci war a delluwaat gi. Hmm. déglu première partie bi. bi ma nekkee xale ma am vingt quatre ans wala vingt cinq ans eggu ma fa sama papa gaañu may yor suñu waa kër ma jàppale leen ci dund gi sama benn xaritu papa bi sama papay gaañu fekk ko fa bi gaañoo ba mu yàgg la doog a ñëw jaasi. bi mu ñëwee jaasi mu ni ani diw laajte ma sama yaay ni ko mi ngi Dakar mu ni dafa am lu ma papaam waxoon ci moom bëgg naa koo gis sama yaay ni ko incha allah dinaa fexe mu ñëw sa kër bi ma sama yaay waxee loolu woo ma ba maa ngi liggéey sàkkay kër ni ma fexeel nga dem këram ma daan koy woo téléphone dem këram comme sama xaritu papa la woon dama damaa bëggoon sama papa bi ma ñëwee këram yan bu si fa mu daan ma sa papa dafa waxoon ni man ak yow nañu sëy ndax bëgguma détails yëpp muy gudd ma ne ko yow mënoo sëy ma loolu sëy parce que sa papa te bëggumaa gis sa kon il faut ne ko man de sama loolu ma wax naa ma tabaski loo jàppoon ni nga ko bàyyi ndax dama lay maye kon xam naa ko yow la doon wax mais yaw moom bëggumaa sëy yow ndax mag nga mu daal ni ma nii bii ma la dalal gis nga ni dalalu la ci saal ci sàll ñi dalal gat man ko am ma néeg ma dalal mooy sa nekk ma ne ko néeg bi la du nekk sama néeg parce que dama fi say si loolu moo waxoon ni ma néeg bii mooy sa nekk fii ma la dalal toogaan na ñeenti at ñeenti at sëy bi doo koy am te néeg boobu noonu moo mujjee nekk sama nekk ci ñeenti at yooyu ma toog sëyuma ak moom ba dugg ca sëy ba dama duggee ca sëy ba ma sonn fa lool bëgguma détaillé lépp li ma fa doon dund premièrement bi ma njëkk naxe mooy bi may takk dan ma ñaata laa lay may sama yaay ne ko nekk ko fii de téeméeri junni moo fi xew mu ne ma incha allah ba may may xaaju maa sax may xaaju téeméeri ju mu ne lii na yam suñu diggante max maay sa borom kër maay sa kilifa kon li ma lay may concerné wul sa yaay wala say mbokk suñu diggante la kon bul wax kenn li ma la jox nekk suñu kër am fa semaine doogay ñibbisiwaat Dakar. mom kilifa gi dakara deuk biñ defee ma jël li ma may ma denc ko daal ni ko yaay comme yow da nga jabot te gis nga ñun problème yi nekk te man mi xamanteni ma leen doon jappalé amna borom kër te damay sey kon xaalis bi ma may duma la wax ñaata la waye nañ ci jënd ciép ak diwlin fay ci courant te nga baña xew bu ma xewal bu ma laccé lenn bu ma jëndal dara nan ci jënd dund kër gi ba légui may wax ak yow sama yaay xamul ñaata lañ ma may kon benn yoon bi ma njëkk na xam ñu nonu ma dem kërëm monima ci jabaru kilifa nga jarul ñu lay mur wala ñu lay defal ay affaire ñëwal rek so ñëwee nga dugg sa nek bi ma ñëwee seeti ko mu ma doo delluwaat ma ne ko man andee ma samay bagage samay yéré yépp mu ni ma yépp dina yónni ñu jëlsi ko wayé da ngay toog ndax jabaru kilifa nga non la togué ci kërëm nga ba ni ma amé doom sama doomu taw sama doomu taaw am na fa taaw pareegul de léegi dañoo war a ngédde déglu ñu war ma tuddal bi ñee suba la tudd man ko man gisuma ba léegi nga ni ma kaa jël mesure wala looy sol wala lii mun ma déedéet ma duma la jëndal yére ma ne ko lu tax mun ma fii ko am doom duma la jëndal yére ma ne ko ñun xamuñ loolu sama yaay day ñëw ci ngénte li ak sama mag mun ma nga sol li nga am wala nga sol li fi nekk te boobu aw ma dara lu ma sol ndax boobu xale laa woon maa doon liggéey Dakar am ay zip ay yére olof mais aw ma lu ma sol pour ngénte aw ma lu ma sol pour ngénte sama yaay bi mu ñëwee bi ñu ñëwee suba la sama yaay ñëw ma ah, waaye kilifa gu toll ni moom xanaa bu ko amul ci baraak ñu xam ko bu dëkkoon ci néegu ñax ñu xam ne amu ko mais ci étage sa dëkk ko sama yaay ni ma xam naa dalay ñëwal ay garaam bu ak yooyu ñu dem ba bisu ngénte la ci suba gi joxuma dara joxuma dara doomam bu mag buy sëy ca koñ ba ñëw ni ma diw ma ne ko ah mu ni ma looy sol ma ne ko sa papa la jëndal ma ma dama la ko fàtte wax sa papa jëndal ko am doom yére mais dinaa la abbal loo sol ci ngoon gi nga sol ko ma ne ko man ko nar a abb bàyyi ma bañ fee yendu ni hôpital laa nekk loolu moo ëpp sutura ndax ñun xamuñu loolu mun a munoo yendi hôpital bu guddi bàyyi rek ma abbal la loo sol dem abbal ma lu ma sol lam ma abbal ma sol ko ca guddi ga dama ko lemaat jox ko mu yóbbuwaat ko loolu yëpp sax du kaa bi dama lay wax rek ñemal ma fa daj teguñu ci munuma dem hôpital heure bu nekk hôpital mun la comme nga nef day rus ñu xam ne damaa ëmb léegi naa ko jéem a nëbb ba ci kanam su ma nee jox ko ordonnance mu ni ma xaalis nekk gu fi bu ñuy jëndee ordonnance ba ma demee ba sonn am ñetti weer wala ñeenti weer ma jël samay bagage ñibbi suñu dëkk ba ma ñibbee ba am juróom ñaari weer taxaw ma hôpital ma woo sama patron bi ma daan liggéey lu ma jël oto nga ñëw léegi Dakar ndax yow dañ la opéré woon amul at nga ëmbaat ñëwul fii ngay togg dinaa am koy menace kuy fóot yépp li ngay togg ma la koy fay te du tere dinaa la jàppale ndax boo amee doom nga am loo yore sa doom ak sa doom bu njëkk ba noonu laa jógee sama dëkk ñëwaat Dakar fa doon liggéeyee loolu yëpp sax mettiwul li metti mooy li ma waxoon ni ma lu mu yàgg-yàgg fii ngay mu lu mu yàgg-yàgg ci këram laay mu jaat hmm? kaa bi des na des na tas na fi mu nekk nii ba dem. waaw non tasul kay dafa dem. waaw daa dem na voilà waaw. waaw ca dem la la war a tas sëy bi nag. Mhm. tas ba nag après la cay topp. Mhm. déglu. loolu mooy li ma metti ndax nit nga takk xale bu tuuti. yow say doom mag ko téeméeri junni yoon nga nekk kilifa. kilifa gu mag yoroo ko tabaski ba tabaski la lay jox ñaari junni wala ñetti junni tabaski ba tabaski la la koy jox ndax sey ba ñenti at la am koko mu jógee ci sey ba ñibbi tas ba ñibbi sama kër sama ko papa moko sona ba may ma baat bi ma maye baat dañu dara du jógee ci kër gi dara sama yere rek avant ma ci jox tok na ñenti yere wala juróomi weer mu do ma jox sama yere waxuma la nak ay bagage yu nekk ci këram xalaatuma koo jël kooku kay xanaan ko bu tassé war amna droit di benen ci kër waye ba léegi lam ma waxon loolu la gis ñima lu mu yag yag fi nga jëm ci wat dox ñew wala daw ñew rek rek muy fi nga wut jëm si waat te fi mu toll li may wax ak yow war naa am juróom-ñett fukki at boo ko amul it na ko man maa ngi ci sama fanweeri at ak ñett wala ñeent te ba léegi nii ay nit di ma bëgg yu yu baax nekkuma Sénégal gis nga numéro bi may lay vocalé ba léegi nii ku ma bëgg rek boo seetloo suñu diggante pour nga dem listixaar ndax c'est des fois ñu listixaar ko ñun la kii boo ko takkee lii gën a sedd ci mooy faat des fois boo ko listixaaru it boo waxee ay wax yu dëgg ba ma xam ne yow mii kilifa nga wax nga ko sëy boo demee dama la gisaat maanaam sëy yàqu yu jeex dama nekk xale bu ndaw ku ma maanaam man damaa nar toog du ma sëy wala damay delluwaat ci kër gi nga xamante ni boo ëmbee du la yor boo amee doom du la yor nga sonn fa lool te mu am ko lool may ñaan nag ndimbal ndimbal bi may ñaan mooy su ma gisee ku ma jàppale te yàlla rek tax dem naa nag ci ay sëñ ba sonn envoyé naa xaalis ba sonn jox nañ ma ay sangaay ba sonn te ba léegi ni may wax ak yow dara dañu ci fu ma dem ñu ne ma kilifa gi nga doon daf la dëj fa ngay delluwaat wala doo am jëkkër loolu rek laay dégg léegi fa ma jógee woon mu metti lool dama fay delluwaat wala damay toog bañ a amati jëkkër damay ñaan yaa rabbi képp ku ma dégg te man maa dimbali te yàlla rek tax ma am boroom kër wax dëgg yàlla am naa ñu may bëgg lool wax dëgg yàlla mais kenn mënu maa takk ndax